ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fi ñu la war a naxe buñ la fa dóoree fooy jooyee loolee tigi moo dar Khalifa Ababacar Sall l'observateur nañu parti bi mu bokk mu di parti socialiste def nañu démb seen ndajam secrétariat exécutif national ca maison du parti Ousmane Tanor Dieng ma ko jiite woon li mu wax moo di yoon li muy toppee Khalifa Sall na ca dem ba jeex bu mu ca yox yoxi nañ ca dem fu mu mujj ñu xam Abdoulaye Wilane mi porte-parole parti socialiste ay kàddoom ci xët mu njëkk li la ciy may jàmm moo di buddi nga xam ne ñoo ngi ci biir parti socialiste fi dara lu dul yàq li leen ciy jàmm moo tàggoo ak ñoom juróomi frondeur ya wane woon seen bopp keroog juróomi fan ci weeru mars ñoo ñett journal bi nee nañu ñoo nga jëm ñoom ca kanamu commission discipline bu parti bi ngir ñu lijjanti seen i mbir L'Obs teg ci fàttali ñu ne maire bu Dakar di Khalifa Sall tey jii la war am ab confrontation di gëm a ya ca maire bu Dakar Bamba Fall consort yi ñu tey woon ci coow woon ca maison du parti ñoom tey jii la xam lu yoon di wax moo di sàkku ci moom Khalifa Sall mu joxe ay preuve maanaam ay firndeel yuy dëggal li muy wax mu di coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru laalewu ci taqewu ci waxam joojee Le Quotidien nañu parti socialiste nee nañu na fexe lu ko dëggal libération xëy ñu beccil ci xëtamu njëkk budget bu mairie bu Ndakaaru ak nañu ko tëralee ca koppare journal bi nañu am na ca benn milliard ak ñetti téeméeri millions yoo xam ne ña nga ci budget ba te dara taxu a mairie ba ngir wàllu éducation wàllu jeunesse bi wàllu culture ak wàllu sport am na it benn milliard ak ñetti téeméeri million ne ay dépenses divers ci luñ leen du laaj ay justification vox populi nañu parti socialiste wan na ginnaaw Khalifa Sall jàppale wuñ ko ci dara dañ ko wan dodd ci jamono joo xam ne kii di Macky Sall moom ma ngay foo yooyal ak a ñàkkal fayda li daal Khalifa Sall mbiri Khalifa Sall enquête dina kay nee nañu président Macky Sall nee na du ca wax journal bi boole kook nataalu Macky Sall mi ngi toog te gi ba jël loxo ba teg ca ca Genève ga mu ci mbiri Khalifa Macky Sall ne du ca wax du ca wax foofee ca Genève du ca wax fii ci Ndakaaru mbir la mu nekk ca loxo yoon nañu ko bàyyi ak yoon l'observateur xëy dëggal ci xët mu njëkk loolee enquête ne moom la Macky Sall wax ci mbiri Khalifa Sall mu di du ma ca wax ci xët mu njëkku Les Échos it wax jànga fa wax ja fa mu ko waxee di ca Genève la sine kay nañu ginnaaw nga doon ñetti fan gu mu fa def Macky Sall ñibbisi na ñetti fan yoo xam ne dañ ko fa doon sargal di ko fa delloo njukkal ko fa takkali raaya ca raaya ya boo xam ne ña ngi ko ko joxee ca Genève School mu di raayab docteur honoris causa moom docteur Macky Sall direct info nañu jàngoroy demande sociale bi ci réew mi moo ko sëkkatal ci diirub juróomi at yi mu di juróomi at yoo xam ci bopp réewum Sénégal xëy na ca tey ji xooli yeneen ponk yu nekk ci réew mi ak la ci président Macky Sall kub gouvernement liggéey mu di wàllu justice bi wàllu njàng mi wàllu wér gu gi ak wàllu culture bi wàllu wu ci nekk sud nañu Macky Sall def na ca waaye yàq na ca li yàqu ma nga nar a yàqoo ca daaf direction autonomisation fichier askan wi wut identité biométrique la ñu la tribune ne booba ba léegi ñoo ngi daw fu nekk ñu warta warta fi ngir man a jot seen identité waaye ba fi mu nekk nii mooy loolu dara jotuñu ko ku ci dem ci commission retrait d'identité doo fa jëlee lu leer la am ca daaf la tribune tudde ko pagaay Mamadou Lamine Diallo njiital mouvement tekki ma ne woon coordonnateur bu Manko Wattu Sénégal Les Échos nee nañu ma ngay dem ab mandaam jeex na ki ñëpp joxoñ nag ne moo ko war a ci coordination bi di Pape Diop njiital bokk gis-gis li ñëpp gis ci mandat Mamadou Lamine Diallo bi moo di aw doxalin la wu saful xorom saful suukar Alaaji Malick Gakou daal la gis ne ak aya moo gënoon a yëngu ci la mbir yi gënoon a jaaxee li na a jaaxal ñu bari mu ngi ci l'observateur ubbi leen journal bi ummi ndaw seen nas ndaw la su am jëkkër ju tudd Abdou Karim Gueye sëy nañu ñaar fukki at ak ñeent 1997 journal bi nañu jëkkër ji da koo leboon xaalis bu toll ci 665 000 francs CFA jamonoy dox ba ren Abdou Gueye takk ñaareel ummi yëg ko takk taxawal jëkkër ji ne na ko fay 665 am mu di bor bi ma ko amel di bor boo xam ne def na ñaar fukki jëkkër ji def caaxaan ndaw si def dëgg ba porté ko plainte yóbbu mbokk yi jëla